waaw boo duggee YouTube bi boo tappee Balago TV di nga gis ne casase yi nga xam ne ñoo jëkk a woy seeni version ñu ngi génn par benn benn te kontaan naa ki nag ndax euh, xam naa ne casase yaa ngi sot parce que seen vue yi noonu mu ngi yéeg bu baax a baax a baax am na ñoo xam ne bi ñu génn ak léegi ça fait même pas une semaine te ñu ngi ci cinquante cinquante mille vues et quelques ñii quarante quatre ñii nangam nangam nangam ñoom daal xam na ne daal ba Casamance yi dañ ne dañu bëgg un milliard de vie pour la Casamance xaw ma nag ndax euh, dinañ ko euh, dër mu daanoom déet mais daal ñu ngi ci. mais est-ce que surtout waa biir Sénégal kese kese Papa Thione toog xalaat ko day génn Sénégal dajale xale yi kenn ku nekk woy ci làkkam. loolu yomboon na pour composer ak ñoom. non metti na torop torop te bu démb doon tey sax dama ko def. déedéet ndax dama dama cee sonn lool lool lool xam nga bon euh, c'est que man nag dama xaw a sopp xam nga parce que j'ai voulu faire chanter tous les euh, chanteurs yi nga xam ne ñooy résider ci les quinze pays de la e ku nekk nga am fa vingt artistes yu war a woy ku nekk war a woy ci làkkam. non mettin na trop trop mais nag euh, xas naa ko sombi ba pare mënatu mënatuma marché arrière de daal xam naa ne daal commencé ñu teg euh, version yi njëkk yi ju Casa 16 yi ci YouTube bi voilà xam ma ndax ni yéen ndax xool ngeen comme déet waaye yéen sax yéen yéen sax talu leen dara yi yéen moom yi yéen moom ba yéen moom information rek ah yéen non c'est que dañoo bu metti boobu en tant moo ci nekk ci leen jox ku nekk sa làkk ci ni nga ko déggee boo koy waxee tey Papa taxawee dem Niger wala mais du tee ku nekk da ci xeetam. joolaa yi rek man xaw ma ne Casamance am na beaucoup de joolaa yoo xam ne ku ci nekk làkk bi ngay làkk bokkul ak sa morom bi ci làkk man ci projet bi laa ko xamee bon ok mais man euh, comme wolof bi. fii la yem moo tax ma bind ko en français ndax mu mën a génn donc mais fu ma ti demee tam li ma xas fa bind rek yow moom ngay traduire nga def koy woy ci sa te amagul fu ba donc ça va alhamdulilah. ku non am na góor. non non non am na góor yu bari nag am na c'est comme ñi jëkk way ñoo war a jëkk génn la rek mais am na jig am na góor yu bari maa fii la bëgg a wax. Ah, maanaam ñoom ñëpp rek après la ñuy def. non xam man li ma bi ci YouTube bi may naa la cinquante pour cent bi à donc loolu daal laa diggee ah bu marché neexee nag ñu def ko nag ay album waaw loolu moom incha allah rabi mais nag xanaa damay xaar seen cotisation yéen ñii xam nga. ah dañ ciy jàpp. waaw waaw parce que tam yéen tam am ngeen ko solo de nangam nangam ah. bu bu gën a un million rek. Euh, sit bu nekk euh, euh, dina baax ah. merci beaucoup. na xam euh, naka nga gisee li nga xamante ne Adiouza moom la. Adiouza ku jara ku jara dimbali la ku jara su soutenir la ndax suñu doom la am na jom te jigéen la te li muy def nag aka mën a way mën naa way de oh mën naa way waaw waaw mën loolu ndeysaan merci beaucoup.